Hello, hello la mi j'espère que vous allez bien. Moi, je me à merveille, santé à alhamdulillah. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, avec votre grande chroniqueuse Kenza 221. Guy, comme nous m'avons fait à chaque fois, nous avons le matricule 221 bifile et que toutes les informations et les actualités se passent ici sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mais en même temps d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. alors si y nga une vous application OneXBet qui sur téléphone portable en juin vous pouvez utiliser code promo ST221 va vous permettre de gagner bonus de 200 non mais je vous le jure 200 donc en juin vous pouvez utiliser le code promo ST221 et c'est écrit en majuscule alors gars yi tey nag euh, dañu wax ci benn jeune artiste rappeur qui répond sous le nom de Big Boy SN Big Boy récemment dafa génne benn clip vidéo boo xamante ne ni c'est intitulé LWDDR dañ ciy wax expliquer et analyser après à la fin de la vidéo ngeen joxe seen xalaat ci moom mais en même temps ngeen dem suivre ko bàyyi ko xel may ko nopp te tamit teg ko loxo pour plus de visibilité léegi nañ àndandoo xooli un petit vidéo bi ñëwaat léegi léegi ayca gang Looking mo fa ñëpp ma ne ren seen bos bari bruit ni daw si seng maay club maay club yéeg mu naay seen dëkk ci du butit mën ngeen ni bañ gis ni sa butit sax mi ma lay jàpp na nga maan bu ko déglu xam ne dali butit mënu ma génne sa bopp Alors guys, on a vu ensemble la vidéo et elle est intitulée LWDDR. Avant tout, nous parlons de l'artiste Big Boy SN. À vrai dire, talent bi ma gis ci big boy je vous jure que bu defee tuuti effort gën a jóob bu baax a baax bien sûr waxuma joobul mais gën a jóob bu baax a baax def ci fulla ak fayda ak gëm-gëm hmm, am na mille chance yegg fu sori sax le pourquoi mooy kile est très talentueux bu dee talent rek mu ngi ak moom mais comme j'ai bi ci dire à chaque fois talent rek doyul boo amee talent foog nga nangoo job nangoo exploiter talent bi nekk ci yow comme ça lépp loo ci am gars dinañ xamni ah mais ce jeune il a très bien bossé pour en arriver là lepp lu mu am tay dako mérito donc bo amé talent da ngay nangu exploiter talent bi nekk ci yow nga liggéey bu baaxa baaxa baax légui nak ñu ñëw ci sound bi en commençant par le beat bon je sais pas ba dafa programmer beat bi ou pas mais en tout cas beat bi nice na trop sax et mom dako maîtriser da ci téggu nice sax beat mom boko maîtriser rek jeexna et mom gis naa ni maîtriser na beat bi bu baax sax. A vrai dire sound bu neexee beatmaker amna ci bu mag sax à chaque fois damay essayer de leen rappeler leur pour ñu bàyyi ci xel les beatmakers mom ils font un job très remarquable ñu bàyyi ci xel bu baaxa ba man je vous aime j'apprécie tellement votre boulot mention spéciale à tous les beatmakers seen liguey rafet na léegi le sound a pour titre LWDDR sound bi Ego Trip Ego Trip la dafa ñëw tag boppam comme niko MC yu bari di tagg seen bopp yëgal seen bopp ba ci kaw maay lii maay lee maa fi mën maa fi nekk wàccee yeneen rapport yëpp ba ci suuf loolu mooy ego trip moom nag dafa ñëw euh, ci sound bi juste pour nu montrer soo talent li nga xam ne moo nekk ci moom dañu xamal ni aussi mu ngi ak lépp genre dafa polyvalent lépp lu rappeur war a am mu ngi ak moom et ci noonu nag gars yi bu ngeen ko dégloo mu ngi naan maa ngi ak lépp man ngeen di bañ gis ni seen boutique Mounou ma gen ne sabou pou man le siti yen nou kou siti Ndak li malaye djam melou man bouke deg lou kham ne dalaye bouti Jan, moun mouge agle pou avet Talan, flow, estil, skills, teknik, ila, tou E le nek ki ti moun mwen mwantak gaye bany kou gis Dany kouy bany gis kom nit bwi gis bouti tem Talan be nek ki ti moun mwantak gaye bany kou gis An menm tan, denye am teknik pou ny wak nek se level sur le moun suivant Bouti, siti ak bouti

sound bi nak nice na bien sûr mais amuñu mots clés yu bari ñu fi mën expliquer à part euh, ñëw na woon ñu ni qu'il est très talentueux d'or ay ego trip ay enchaînement aussi yu amul fenn à la fin de la à la à la fin du sound autant que pour moi té bo len baye xel flow bu rare la am non mais je vous le jure Big Boy un flow bu rare la am en plus de fou polyvalent day rap di way boy déglu sound bi nga dégg fu muy rabee da nga nan zam non mais ki mëna na nga dégg fu muy woy nga ne oh my god moom mais ki woy la gën a mën ko rap dafa naturel ci moom en fait donc ñëw na aussi dóor ay anglais à la fin du sound et loolu aussi day taaral sound day wane ni dafa waa quoi yéen a ma gën a xam li ma koy wax nag mooy na gën a riche lyrics yi gën a gëm boppam bu baax a baax a baax parce que affaire yi moom gëm-gëm la rek euh, gëm-gëm la ak liggéey bu dee talent bi mu ngi ak moom style bi flow bi skills lépp ngi ak moom macha allah donc gars s'il vous plaît daw ngeen xooli sound bi ngeen seetaanoole en même temps la vidéo ngeen joxe seen xalaat ci commentaire yi ngeen suivre ko partout sur les réseaux sociaux il est ngeen jàppale ko bu baax a baax donc lii laa leen indiloon tey gars ñu doon wax ci Big Boy SN N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, mais aussi de liker. En juin, si euh, s'il vous plaît, utilisez ce code promo ST221. C'est écrit en majuscule. Vous allez permettre de gagner bonus de 200%. Allez, puis c'est la mi Gros bisous à vous. Restez bien connectés. À la prochaine Love You All. Au revoir.